dal leen ak jàmm mbokk internet yi même bu fekkee ne olof njaay dafa wax ne daw ba rëcc ci ngóor la bokk góor war naa jomba def luñ koy dàqaje waaw tey ca Cambérène la fas yéene ànd ak yéen ñu fekk fa ñaari sàcc yu doon làqatu ba far siiw la leen siiwal di ab caméra de surveillance bu nekkoon ca barab ba dil yi sàcc yi ak agression yi ci réew mi mu ngi mel ni tulli ak màlle bu doon ab ngelaw ma ne pëndëm baa ngi wuree fu ne rawatina jamono ji nga xamante ne ñu ngi jublu ci tabaski ji xibaar bu jógeekoo ci waa leeral point net mi ngi ay nataal ak vidéo ñaari sàcc ci marché mambay bu Cambérène waaw ñoom ñaar ab magasin la ñu fa dajji waaye ndorteel la ba ci njeexital la lépp yëguñu woon ne ab caméra de surveillance mi ngi leen di filmer magasin baa nga féetee ca wetu deux voies yu Cambérène ya aljuma ji ñu weesu ci guddi la fa ñaari samba booy ñëw dajji fa ab magasin boo xamante ne mi ngi doon jaay ay matériel électronique waaye boobu magasin boo xamante ne nii moom la ñaari xale yu góor yi nga xamante ne ay sàcc la ñu daal di jublu caméra de ba fa nekk filmer na ci lu samba booy yi yëgul seen jëf ji yëpp tàmbalee ko ca ba ñuy soog a yegsi di wër di xool ndax amul kenn ku leen di gis acca nañuy demee di uti lu leen mën a may ñu mën a dajji buntu magasin bi bagage ya ñu fa wekki ak na ñu ko génnee ngir rawale ko lépp mu ngi ci vidéo de surveillance mbir yaa ngi xew ci xaaju guddi diggante deux heures ba trois heures du matin xanaa lii la olof njaay di wax naan soo xamoon li lay yoot di nga bàyyi ki ngay yoot ñoom ñaari sàmba booy ya nag la ñu jot a jël ci ay matériel la bari na ci xayma ndax jël nañ fa ay écran télévision ay rajo ak barab ba jot nañu déposé ab plante ca police bu Parcelles Assainies ba jot nañu ubbi sax ab l'enquête jëm ci mbir mi li am ba des kay mooy ay sàcc yuy neex a jàpp la ñuy doon ginnaaw si nga xamante ne ab caméra de surveillance filmé na leen ba gis seeni xar kanam ya bi la yoon moom way takk der yi duñu sonn ci jàpp ñi def gile ñaawte mën nañu wax sax ni feeñ nañu ba noppi ci suñu xalaat bu gàtt jëre ngeen jëf